mbokki internet yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñëwaat nañ fii ci suñu kër Oustaz fay fa euh, fas ne waxtaan ak moom gannaaw bi nga xamante ni keroog def na benn sortie ba am ay polémique yu ci ñëw euh, dañ koy nuyu waxtaan ak moom ci ñaari kàddu euh, Oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax a baax gis nañ ni que démb Serigne Cheikhouna Bara Mbacké Falilou génn na am ay kàddu yu jotal ban gis-gis nga am ci kàddu yooyu noonu. <coughs> a'uuzu billahi mina shaytaani bismillahi irrahmani irrahim salawatullahi wasalaamuhu alayhi <coughs> euh, ginnaaw ba ñu nuyoo bokk yëpp ñi seetaan ci réew mi ak biti réew euh, te di ñaan sunu borom tawat yi nekk ci àdduna bi yàlla ko yàlla dindi ni mu gën a gaawee ndax xat-xat yi àdduna toll rawatina sunu réew yi ndax sunu borom mën na lu nekk nañu ñaan rek euh, tey saraxe te ànd ak di moytu a ah, kàddu yooyu nga wax ci sëriñ Cheikhouna Mbacké Bara Fallilou ah, bi mu amee ah, ñenn ci bokk yi ak wëllëre yi ak njaboot gi ñëw nañu ci man dégtal ma ko it nag bi ma ko dégloo ba pare ma ne ah lii de daa mel ni nekku ci nag ndax ki wax war naa wax ki mu waree ki mu waxal it war naa wax ak moom ndax war naa wax ak man wax dëgg yàlla ndax Serigne Cheikhouna beeg ñaari wetam yëpp Cheikh Khadim la Serigne Abdou Samad la ak Cheikh Mouhamadul Fadil moom Serigne Touba comme wet goo ko dàq mi mu Serigne te ku ne xam ne ni ñun ay dong yi Serigne Touba lañ ay donk ay ñi gën a ñi gën a xeebu te gën a doyati ci la ñu bokk te aada ah, li ñu yare ci yoon wi mooy boo da ngi fonk si Serigne fonk njabootam te ñun ay ay taalibe yi murit lañu. Euh, ci la ñu fekk sunu maam ndax sunu maam mi jur sunu baay soxna jaaratullahi la ko sëriñ jéeri waraan tudde te sunu baay dund na ëpp téeméer at ba mu faatu nekk di yàgg na sunu ndey di doomi daara ci diggante ñi sant kebe ndax soxna may mun a kebe moo ko jur soxna maam may mun a kebe nekkoon na kër alaaji Mansour kër xaaji Mansour sëñ xaaji Mansour moo ko jox wertu salatul fatiha sëñ Abdoulaye jaxate moom tamit di waajuram ku ne xam ko ci jaxate xam ko ci mbaakol ak euh, mbokkam yu baax seen kër yëpp day daara kon dafay mel ni sëriñ jeex naa moom eh, kilifa la ci ñun eh, suñu kilifa googu nag kon danañu am tawféex dañ ciy sant bu baax ndax it nag eh, sa kilifa wax la si ay cant la ndax bokk na ci ndax nit gis-gisam dafa gàtt xalaatam tamit léeg muy xalaate neneen waaye sa kilifa bu la waxee sa ayib dimbali na la te li mu wax rekk nekk ci man nag li mu wax lépp a nekk ci man xëy na sax am na lu ci bàyyi ndax ak baaxam waaye moom sama kilifa te xam nañ ci moom ak baax xam nañ ci moom bëgg xam-xam ndax ñaari casquette yi mu ràngoo benn bi diine ko diine la di Cheikhul Khadim te mat nag benn bi réew mi la ndax mu toogal réew mi kon kilifa la ci wet kon ñun amuñu nekk njaboot ci kanamam rek te lu mu waxit <coughs> ñu xam ni dañ ñun la bëgg a dimbali rek nag ñun la bëgg a dimbali. Euh, ndax mën nañoo xam oustaz euh, fan la jaar lan mooy kii ndax maanaam borom xam boo gis am na fu mu jaar ci parcours am mm. euh, ndax mën nga dikkaat un ci maanaam institut yi nga jaar ba tey jii nii yàlla may la diplôme yi nga am. waaw foofu tamit xëy na ñun baaxuwuñu loolu sax nag ndax mosuñoo exposé ay diplôme ndax loolu taxul woon ñuy jàng ndax daa mel ni sax ñu ëpp xam-xam ci àdduna amuñu benn diplôme. réew mi gis nga suñu suñu kilifa ñuy jàngal ñi leen jàngal ñëpp gis nga tubarkal tey di santaale tamit gis naa ñu bari def ci ay sorti tubarkal ma gis ne daa mel ne xam-xam rek mooy jël mooy am ndam ma gis ñi ñëpp lu baax rek la bëgg wax dëgg yàlla bëggan ma ko bëgg sax nag wax dëgg yàlla gis naa ci wax ñëpp tubarkal am na ñoo xam ñoo xam sax ginnaaw gi waaye it ma xam ne nag penc mi tubarkal daara ji moom benn la rek kon ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm xam ni eh, eh, <clears throat> noonu rek la santante ak gërëmante ndax xam naa ne ñoom lu baax li ñu bëgg nag léegi njaboot gi waxoon nga ñoom ñëpp lu baax rek li ñu bëgg wax dëgg yàlla wax li eh, sama jaar-jaar bu gàtt nag mooy eh, nit jaar fa nga eh, fa nga jaar nga wax ko day doon ak cant yàlla delloo tamit njukkal ndax sama ñaari jur yooyu xaaji Bilal Fay rahmatullahi alayhi ak xaaja Ndey Penda Jaxate rahmatullahi alayha ñooñu dañ may yóbbu bu ñu ma juree dañ may yóbbu daara dénk ma sëriñ boo xam ne mi ngi dund ñu ñaan yàlla mu gudd fan sëriñ Maxtar Jóob di doom mam Baara Jóob kër Maamor ñoom seen seen kër taalib daara boobu ba tey fayul moom ma jàngal alxuraan ni ma jàngalee alxuraan tamit jàngal ma xam-xam bokk na ci ni ñu daan taree alxuraan noonu lañu daan tay téere xam yëpp comme ay laxtiri ibnu Xajar sama bi loolu ma xewoon ci daara ja ña daanaka ñaari daara la am bu ci kër gi sama mag ma bokkoon ndey ak lu bari jàngal na ma ko koy sant bu baax moom tamit Euh, bi ma jugee ci foofu laa defee candidat libre certificat yàlla dogal ma am ko ci la ñëwee kër xaaji Njaay Samb bi rahmatullahi alayhi di mufradul alam di al faqih bu mag di mufassir nag di ko dégg ar def ci wetam juróom benn at amee brevet waaye tamit ci majalisam fa la ma firi leer ay yoon yoon ak mbooleem téere fiq yu baree bare ak masali fiq yëpp ci ma la ko dégg nag wax dëgg yàlla xaji Ndiaye sama ñu koy ñaanal bu baax di ñaanal ak njabootam yàlla dugal ba mu amee fa mu faa fi bëre fi eh, at moomu sax <laughs> buntu liggéey taxawoon na moo waral ba nag dem jàngale ji ci sama benn mag boo xam ne sama bàyyi sëñ Bakki man la ko tuddi woon jiitu na sax yàlla na ko yàlla yërëm moom sëñ Bakki moom topp sol ma fu mu war a mën a jàngale ci bi bi ma tàggoo sama waajuru jigéen dafa ni ma sa ndey ji day fatiha bu sell moo ko gënal ay milliards loolu la ma sama lay wax demal nga jàngi fatiha bu sell moo ma gënal ay milliards demal nga jàngi ah ma daal laxas dem jàngi nag euh, Azhar fa laa amee bac. Azhar bu Cees bi Azhar bu Cees bi fa sant bu baax waa Azhar yëpp te ku dem ci direction ba yaakaar naa ni copie yëpp ma nga fa ndax yoo moom mi ngi bëgg yàgg ñaare di sant sunu borom waaye it doyluwuma bi ma amee bac dama continuer. ndax naka jekk liggéeyu xarale yi wàllu informatique dama mos a ñor te euh, njàng moom maa ngi ko tàmbali 94 ci wàllu informatique 94 la tàmbali loolu ah di ci gëstu di ci gëstu ba yàlla defal ma ci tawfeex it euh, ma àggoon tang ci war a gëstu ci mag réew mi ak borom xam-xam yi réew mi ci la am ay bokk yu ma àndaloon dem IFAN boobu professeur Sam ne IFAN dëgg yàlla mu yaatal mu jamono boobu. yi ma bëggoon a gëstu yëpp ci jamono yooyu yëpp mu defal ma ko wax dëgg yàlla waaye doyluwu ma foofu it yàlla dogal ndax man sama njàng yëpp yante la sama wajuru góor ak wu jigéen ak samay mag ñoo ma taxaw euh, doyluwu ma foofu tamit yàlla dogal euh, réewi naar yu bari euh, dem naa ci teg naa ci sama tànk te gëstu moom fa yóbbu woon ak dolli sama xam-xam ñu am bourse senegal di sant bu baax état senegal ngir xam-xami diine yi rawatina yi jëm ci wàllu woote ci lislaam ak li jëm ci wàllu jiite xam nga imam ci lislaam dafa dafa rëy imam dafa aaju yu bare bare léegi xëy na yenn yi dañ la ko wax ndax bii nga gis di diplôme bii nga xamante ni ci wàllu xam-xam yi ci wàllu xam-xam yi diine la nga xamante ni Cheikhul Azhar moko ko signé ak euh, chef département ba agrecteur ba ambassade Sénégal visé fii nga xamante ni ci xam-xam yi diine yi la te laj na loolu yaa maanaam branche bi gën a mag ci jamiatul Azhar ñoom ñoo ko ñooy def ñooy tàggat euh, ñi ñu tànn ci lii te Seyxul Azhar ci boppam moom moo koy sëpp mooy signé moo koy si mu doo ko valable. ban année la bi yàggul woon kon côté 2012 la woon euh, euh, yàlla dogal euh, ci ba tey jaamiatul azhar madinatu nasri foofu tàggat nañ ma fi ci wàllu finance islamique waaw nga xamante ni e, ci markaz saalih kaamil la ci e, diplôme bi nga xamante ni ci wàllu jëm ci wàllu xam-xam yi jëm ci wàllu iqtisaad ñu tàggat mu fa ci loolu tamit euh, doyluwuma euh, lii nga gis ni ñu ngi sant bu baax su sunu mag ji ñu fekk woon al mamlakatul arabiyya saoudiya Haji Baara sonn na ci lool ci suñu cursus ak sunu parcours koy ñaanal suñu boroom yàlla defal ko tawfiix euh, ci wàllu mu tawif ak ak xam-xamee aj yi ci wet yépp moom moo ma ci taxaw waaw moom fa la fi teew ñoo bokk lépp ñoo bokk nekk bay euh, euh, lii nga gis ni ay xeeti euh, kilifa gi koy jiite lii di al ustaz ak docteur Mouhamed ibnu Hassan ibnu Ousmane ustaz al lughawi bi jaamiati al azhar wa ummi al qura maanaam kilifa la goo xamante ni ci wàllu xam-xami luga yi rawatina jëm ci wàllu dégg arab ak lu jëm ci xam-xamu ak sarf ak balaaxa bokk na ci kilifa yi ci gën a mag di jàngale ci ñaari université ci jaamiatul ummul qura ak jaamiatul azhar moo jiite woon euh, programme bii ma lay waaj wax nga xamante ni demeen ñett la ñett la yoo xamante ni day day mel ni première degré la première degré la ak deuxième degré ak troisième degré maa ngi ko def ci sarx ibnu aqil daa nga sarx ibnu aqil bam ala alfiyat ibnu malik Alfayda Ibn Malik fa la grand-mère yam nga xamante ni ijaaza bi ak ni mu ko signé ak ni mu ko bindee yëpp mu ngi nii nga xamante ni mooy ci ci ci loola ci kilifa googa eh, mu taxaw ma ci ba yàlla dogal ma am ci première deuxième troisième degré yàlla dogal tamit ma foofu ma foofu eh, ci wàllu lu jëm ci wàllu informatique ak eh, bureautique yu demee noonu xam nga fii ci ministre de l'enseignement supérieur ci at yële nga xam te ne boobu at ya ca ginnaaw bi ñuy doog a installé seen centre de recherche yi te mu aje ci eh, enseignement supérieur euh, dañ cee boore woon arab ñi ñu tànnoon ci wàllu arab ñaar lañu woon maa doon kenn ka foofu euh, defar nañ ma fa euh, maanaam juróom-ñeenti module ci ay xeeti xam-xami informatique yu bokkul def nañ fa ba fa def wàllu infographie di di photoshop ak illustrator waaw en français sax lañ ko defee voilà waaye ñun danañ ko mën a traduire ni koy jàngale en bii tamit boo ko gisee tamit ci wàllu euh, comptabilité en informatique ba tey ci ministère bu jëm ci wàllu lépp lu jëm ci wàllu numérique ci Azhar ca kii ca ca euh, euh, Misra fa laa ko defee nga xamante ni ju bi yu ci bari ay pente la Eh, eh, eh, yëf daal xam naa xaw naa bëri. oustaz macha allah doy na mm. mais oustaz mm. ki ñuy wax naan amul xam-xam. ñu ñëw këram fekk fa mu am bibliothèque. Mm. loolu kon lan la lay nduru kon bibliothèque bi kon. waaw li ma xam ci sama bopp rek mooy xaw ma dara moom li ma xam te mu wóor ma ci sama bopp mooy xaw ma dara loolu moom leer na ma xam ni xaw ma dara moom leer na ma nañ foofu tamit ci wàllu téere yàlla dafa dogal dama amoon sama waajur wu jigéen soxna Ndeye Penda Jaxate waajuram soxna may mun a kebe. sama yaay dama ni sama maam nee na soxna may munu kebe te xaaji Mansour ma ko jox wéru salatul fatiha nangoo naa ci sëñ Babacar radiyallahu anhu moom Seydil Xaaji Malik ni doo du ma doyal ñett ñu ne ban ak ban nee na du ma doyal ay téere du ma ay yére du ma ay nit sëñ Babacar mu saraa loolu sama ndey moo ni ma sama nee na nangoo na ci sëriñ Babacar radiyallahu na du ma doyal ay téere na téere yi lu ñuy bari bari bari bari bokkuñ lu ñuy lu ñuy wax te boo ci jër xam loo xamul woon sama yaay ni ma na nga fexe alali dong mooy ay téere ndax moom ab sëriñu daara loon sama ndey waaw yu bari moom ko jàngal nee na du du doyal ay nit sëñ Babacar daal di ku ñàkk njariñ amul koo xamul njariñam moo am te koo am am njariñam mucc ci loram sëriñ Babacar radiyallahu anhu ñetteel ba nee na du ma ay yére nee na nit ñi xamuñu baatin zahir la ñu xam nit ñu xamuñu baatin zahir la ñu xam moo waral ñaare ginnaaw dama xamul lu bari te bëgg di gëstu moo tax ñaare li ëpp ci sama waxtu dama koy jàng ba tey jii damay jàng li ma ci gën neex sax fii ci ci ci kii ma wane ko gis nga euh, fii ma dëkk di Thiès dafa am teraanga ju ñu ma defal yaakaar naa 2008 la ñu wala 2009 2019 waaw yëguma tiinuma ñu ñëw daje ak man tànn daal ci engagement wàllu religieux ak taxawaay yi ci raison bi nee nañ yaa fi gën a ràññeeku jox ma ay ay cadeau yu baree bari suñu bokk yu bari bëgg ci loolu mooy maanaam diplôme bi ma gën a sax kii boobu moom sax laa teg fa yi ci des yëpp exposé wu ma ko yàlla dogal tamit université yi ci àll yu baree bari wax dëgg yàlla di ma invité ndaje yu bari tamit ñu seeni borom boole ma ci nga xamante ni daanaka da ngay xool yëpp ay invitation université la ay université yoo xam sax ni lay tuddee sax maanaam sa yaram sax day dama wax dëgg yàlla. waaw Oustaz kon en grosso modo rek tey jii kon maanaam euh, bon sa kàddu gu mujj gannaaw bi nga xam te ni def nga sorti am na yoo xam te ni génn na ci mais lépp rek nga tënkal ñu ko maanaam ci kàddu gu mujj rek ban ban message bi may lancé rek mooy ñun daal amuñu solo ay taalibe rek lañu te it bëgg a defar rek lu ñuy wax rek bëgg a defar tax te it euh, réew mi ñun ñëpp dañ koo bokk waaye nag euh, léeg-léeg it njuumte du ñàkk ci wet ci ku nekk ndax yàlla subhanahu wa taala bind bu bind nit ñaari ñaar yi da ko koom moo ñaar fàtte juum moom moo tax ñaare toujours damay jàpp ni man maa def toor ci lépp rek waaye damay jàpp ni kilifa yi nga xamante ni ñoom laa seq làng gi te ñuy sama kilifa ci wet yëpp ñoom amuñu gisuma ci ñoom dara lu baax rek nag wax dëgg yàlla di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh